11 quand mi revenait je te fait une, une confidence. je suis tout qui devient qui devient publique quand ñu nekk ànd jëf muy dem états muy dem Nations Unies am fa contrat. man elle m'a invité à dîner. la ma wax dénk naa la sama ginnaaw fii ci ànd jëf alors que mu ak moom mosuñu xeex nañu def nañu nekk mais wóolu naa la. cela veut dire nos relation poli da doon dem politique mais da doon dellusi waat ba mu dellusee Macky laa accueilli dans l'APR demul ànd jëf Macky moo ko forcé indi ko APR signé ak moom contrat sax pour pour mu nekk coach politique. Mm-hmm. nommé ko ministre bokkul APR nommé ko ministre de la justice on on se rappelle de ses conflits avec le PDS nommé ko premier ministre. ñu am conflit mu am conflit ak parti bi jël ñu delloo si ko nommé ko président conseil économique social environnemental mu am conflit ak parti bi ak conseil économique social environnemental ñu dellu si mu dellu si amul conflit da ngeen ko dàq pour indi Idrissa Seck. non non déglu rek bu doon amul woon conflit. kon du toppaat conflit ko non kon du toppaat Macky Sall xam nga man nekk naa fekke naa ba mu topp muy liggéey pour nekk tête de liste. mii maa ko base fopp ci Sénégal. waaw. Ah. dàquma politique njëkkuma ci politique. dàquma wax. dàquma jëf politique. musuma wax nañ ma def tête de liste même bu dul département de Podor benn yoon musuma xëccoo ci leneen ak ñeneen ak ñeneen ñu mel ni man ëpp ko baas taxu leen jàng ëpp leen expérience ëpp leen dara amul amul fan fu mu leen rawee dara loolu li ko Macky Sall bu ñu boo dindee li ko Macky sal defal mooy ministre de la justice ak premier ministre moom ci sénégalais yi muy yeneen yi la yemal am na sénégalais yu bëri ñoo ko ëpp expérience mais Macky Sall def na ko premier ministre ku la defal premier ministre defal na la lu mu ku la def premier ministre defal na la lu mu mënal defal boppam parce que premier ministre li ko féete kaw mooy président président c'est la nation qui donne président Macky sal daf ko def premier ministre nation bi moo ko jox le jox ko la légitimité moom mu jël Macky Sall euh, euh, Mimi Touré nommé ko premier ministre. léegi. déglu rek ma wax la responsabiliser ko def ko tête de liste gis nga part ñun. elle a fait le tour du pays. non attends. Euh, elle a battu campagne. Euh, non regardez le campagne am partout où elle était. elle était assise avec les responsables ci kaw oto bi. dañ ko tëj. non non déedéet bi muy dem campagne dañ ko tere mu wàcc. dañ ko cloisonné. non non wàccul fenn. non non bàyyiwuñu ko mu nekk en contact avec les responsables. non ñu ñu jël ko tappal ko taal si la ñoom maître El Hadj Diouf ñoom El Hadj elle n'était pas légitime. Ah, elle n'était pas légitime. c'est pas question de légitime da ngeen anticiper. non non la légitimité ah. xam nga non non la légitimité. elle n'est pas légitime elle fait le tour du pays. elle est non non attends attends rek la légitimité. donc elle a perdu les élections c'est la première fois. qu'on perd les perdu. non elle n'a pas perdu yéen élection législative ou bien vous avez perdu. les législatives. non non non dama lay wax rek. vous avez perdu wax la ba leer nañ. ah. elle a perdu à Dakar où elle était pratiquement. elle n'était pas tête de liste Dakar. non non non elle est militante à Dakar. elle est tête de liste boo nekkee ci liste nationale. à des positions de tête de liste nationale sa base. day fekk nga am base bu mu am légitimité bi tu viens de me rejoindre sur la légitimité elle n'est pas légitime. pourquoi vous en avez non yow yaa wax non campagne am ni mu defee campagne ba mu ñëwee bu ñëwee bu ñëwee Podor man bu ma ko recevoirul damay am les mêmes résultats yi may am moom moom moo bëgg ñëw ñu bu ñëwee Podor maag Ablaye Daouda ñoo dem teeru ji ko mu teg ñu ci kaw otoom parce que xam na ne ci biir parti bi politiquement ëpp ñu doole liñ ko jox ñun mun nañ ko jox mais ñun laajuñu ko. parce que ñun Macky Sall moo ñu ñor te jox nañu li mu ñu jox doyal nañ ci bu ba mu ñëwee ñun la àndal toog fu mu dem foofu la àndal ak toog ngay ne non dañ ko tare kenn tere man bu ñu may jox dara di ma ko tare day fekk damay xam moo ko duma ko nangu non li ngay wax du politique non j'ai di fii ñoom ñëpp Macky Sall nommé na leen dix ans mosoo dégg contentieux ak ñoom ak Macky Sall mosoo gée dégg ñu taxaw wax dara conte Macky Sall démarche bi le débat sur la candidature de Macky Sall ëpp na 2019 am na ñu koy wax ne dañ lay nommer fii ba mille 2029 ba yaa fii nekk wax nañ ko le débat était là de automatiquement après 2019 le débat sur la candidature de Macky Sall était public mosoo leen dégg fenn ñu ne d'accorduñ ci du ci biir parti bi du ci biti du ci instance su bi du ci